Sénégal ñun gunge nañ quatre présidents yi nga xam ne ay sénégalais lañ te ñu ne Casamance ci Sénégal la yàlla def Casamance gunge nañ quatre présidents bi yoon Ousmane ko jóg leader mi nga xam ne leader mi nga xam ne Sénégal yëpp a ko bëgg Afrique yëpp a ko bëgg monde bi yëpp ko bëgg mu am jafe-jafe yi nga xam ne jafe-jafe politique parce que bu doon jafe-jafe yi nga xam ne du politique xëy na lii du am mais nit du am doole ci politique nga ne da nga koy éliminer parce que Ousmane Sonko deful dara. ñu jékki-jékki problème bu nekk teg nañ ko Ousmane Sonko bi yoon nag li ñu def dafa ëpp olof Ndiaye nee na lu ëpp tuuru ñu jékki-jékki fekk ko këram mu ngi wor jóge juma ñu foto ko bu ma caméra ñu caméra ko ñu ñëw téye ko yóbbu ko brutaliser ko mel ni di doom sénégalais mais bu doom beneen xale la sax beneen dëkk la jógee sax waruñu ko def la suñu moom mu dëkk Sénégal en tant que leader ñun femme Casamance yi dañoo jóg parce que ñun yàgg nañ di gunge te yaakaar naa ñoom tam war nañu dimbale Ousmane Sonko taxaw ndax Sénégal ñun ñëpp ko ba lu ñu nekk di def Ousmane Sonko neexuñu tey neexuñu suba neexuñu ginnaaw suba ndax ñun sonn nañ sonn nañ de ndax Sénégal suñu xale yaa ngi jàng ba ñu am diplôme lu ñu am liggéey lu ko waral Macky Sall dafa téye Sénégal otage ko otage boobu la ñu bëgg mu deñ ndax bii ko am capacité pour déposer candidature na ko bay mu jàll ñun lu ñu bëgg na bàyyi Ousmane Sonko tout tranquille ndax Ousmane Sonko sëkkul ak moom dara ndax Sénégal ñoo ko bokk Sénégal ñun ñëpp a ko bokk Ousmane Sonko fii la dëkk dëkkul feneen nañ ko bàyyi mu bokk candidature bi ñoo lu ñu bañul ñun bañuñu ko ñun ñun jigéen yi jur ñi nga xam ne xam nañ jur nu mu méttee ñun bañuñu ko ndax barikat bi duñ ko bàyyi de tant que bàyyi ñu Sonko duñ ko bàyyi tant que bàyyi ñu Ousmane Sonko duñ ko bàyyi fii nu ñu téye nii duñ ko bàyyi ñun jigéen yi ñoo gël kii pour ñu ne góor yi kaa leen taxaw ñu liggéey ndax sonn nañ sonn nañ jigéen yi sonn nañ ndax doo jur doom ba nga dem ba sa doom bi nga yaakaar ak moom gars yi di koy sonal Ousmane Sonko lan la def senegal lan la def combien da ñu ngi koy topp yow nga rajee nit ki mu liggéey nga fekk ko ci fonction publique nga rajee ko mu génn mu ne dee politique politique boobu mënul am jàmm nekk député ñu sonal ko sonal ko mu ñëw nekk maire mu ne day nekk président ñu ne du nekk président xanaa dëkkul Sénégal ñun lan la ñu bëgg a lay xanaa Ousmane Sonko dëkkul Sénégal bu feke feneen la dëkk ñëw Sénégal nañu ko wax. yow bu fekkee doomi Sénégal la juddoo fii Sénégal am kayitu Sénégal yi yëpp nañ ko bàyyi mu bokk ndax ñoom lu ñu bañul ñun bañuñu ko de garsa garsa bu ñu ne lu boobu la ñu bañ a dëgg dinañ ko dëgg ndax Macky Sall moo ko njëkk a wax mu ne am na plus de 1000 personnes nga xam ne dinañ dem pale ñu génne Ablaye Wade waaye bi fan la dem demul fenn nee na Macky Sall ñun ñu ne femme Casamance yëpp lay wax femme commune Katabay ñu ne na bàyyi seen doom bi ndax fii moom xam na lu muy jël fii fii mooy buntu Afrique. fii mooy frontière bi nga xam ne oto dem yëpp Afrique fii la ñuy jaar ba frontière bii tant que bàyyi Ousmane Sonko ñoom fii duñ fi liggéey fii oto du fi jaar lu ñu bàyyi benn oto mu jaar bu ko neexee muy indi armée mu rëy ñu mais ñun du ñu bàyyi yoon bi ndax moom waroon toni la yaakaar ndax moom waroon toni la yaakaar amul doole de moom ëpp ñu doole ndax waroon toni mu yaakaar ñun ragal ñu le ñun ñoo leen jur jigéen moo leen jur ñun ñoo jur ñëpp bu formuler du ñu form nee leen Macky Sall ñu ne les femmes de la Casamance ñu ne mu bàyyi Ousmane Sonko tout tranquille na ko bàyyi tout tranquille bu buggee jàmm lu mu bàyyi. man fi may njëkkee mooy Leral TV dama leen di gërëm bu baax a baax parce que bu ñu fi nekkee ba tey euh, gisuñu ñi nga xam ne dinañ ñëw fii war a jël suñu suñu suñu suñu coono soit li nga xam ne moo ñu metti yóbbu ko leeral ko ndax nit ñi yëpp ñu mun ko gis. kon dañ di njëkk a man fi may commencé mooy suñu rakk yi ñoo xam ne dañuy jël gaal diggante ka Fontine war a dem te mënuñu àgg fi may njëkkee mooy foofu àgguñu kenn xamuñ seen bopp fan la nekk ndax dee nañ ndax jàll nañ dem waaye daal li ma leer mooy bitim réew àgguñu foofu bu ñu fa àggoon dinañ doon di am lu leer ci ñoom mais loolu dama koy laaj Macky Sall moom laa koy laaj parce que moo yore kaaraange réew mi deuxième li may wax mooy Sénégal Casamance eh, dañ koy xaajal mais ñun dañuy gis ne Sénégal yëpp benn la mais li tax Sénégal quatre président ñu taxaw fii ñëpp jógee ko nord niis ñun ñu am suñu ay leader yoo xam ne fii la ñu commencé ku xëy rek ñu éliminer la ku xëy rek ñu éliminer la te Ousmane Sonko ñoo taxaw amul beneen pexe boo xam ne war nañ ko mun a def lu dul ñu jiñ ko viol ñu jógee ko foofu yow nga dem be buntu kër nit nga koy filmer mu ne la arrêté li ngay def nga bañ ko nga ne doo ko def te même jigéen la tamit eh, la la doon man dama ne gouvernement bi ñoom dañuy xeeb suñu jigéen yi parce que ñu ngi jël suñu jigéen yi di leen yàq ci bi te loolu ñun d' accord ñu ko tey d' accord ñu ko suba ñun frontière bii Sénégal bu ñu buggee jàmm bu ñu buggee jàmm ñu bàyyi Ousmane Sonko mu dem toog këram bu ñu ko deful frontière bi fii des na tuuti ki lu ñu war a wax suñu diggante ñi nga xam ne mooy frontière Gambie fii chauffeur bi war a jóge ko fii dugg Sénégal fii ñun dañu bugg a gis kan la war a doon parce que loolu yëpp méttit boobu Macky Sall moo ko teg ci biir réew mi fii moo tay loolu il faut ñu génne ko suñu rakk yi ñu nekk di rey soit ñu ñu nekk di téye di leen tëj ci li nga xam ne politique rek moo nekk foofu Macky Sall na fàttaliku bu baax ñun dafa am benn kàddu ñu ngi koy fàttaliku bu baax ci biir ko e, boppam bi bu mu ñëwee taxaw bi njoona fii rusul gàccewul dara xitewu ko lu dul mu taxaw dinaa ne Casamance sànni leen ma carte bu ngeen buggee bokk ci carte Sénégal xanaa ñun kon Casamance bokkuñ ci Sénégal nga yore sa pièce d'identité pièce dantité bi nationalité fan la nationalité Sénégal ñuy ñëw di président en tant que président rusul gàccewul sax tiitul ragalul mu taxaw dinaa ne bu ngeen buggee bokk ki Sénégal ngeen ngeen ngeen votel ma ndax ma buggal leen ci carte Sénégal loolu nag day leer leeraay boobu noonu moom la ñuy def nii na bàyyi Ousmane Sonko mu dem toog këram mu am jaamam te mu bàyyi ko mu dem bokk ci élection bi bu gagné mu dem kenn bu ko gagné te amul problème waaye wóor na ko ne Ousmane Sonko bu demee day gagné te loolu mooy am. ñun chaque jour ñu ngi fii depuis le vingt depuis depuis àjjuma ba tey ñu ngi fii ñun du ñu jóge ko fii du ñu jóge ko fii dinañ xeex yoo dinañ xeex Macky Sall dinañ xeex ki nga mënut a doon ki nga xam ne dina ñëw di ko reporté fii di war a romb ñu ngi ñu ngi fi taxaw di ko préparé ci